kon bàyyil xel sa bopp ndax borom bi subhaanahu wa taala daf la waxoon ni wala yubdiina diinatahunna illa ma dahara minha bur feeñal lenn ci sa taar bul génnee lenn ci sa taar lu dul la nga xam ne moo war a feeñ ci yow kon na nga xam ne fuddan bi tey di feeñ ci yow bokk na ci say taar ndax mbir la boo xam ne dafay taaral say loxo takkaay yi nga xam ne tey yaa ngi koy takk di génn dafa bokk ci li nga xam ne sab taar la ngalawaay bàyyi ko xel dangay gis ab mutaxajiba boo xam ne tey mi ngi góorgóorlu kémtalaay kàttanam ci diggante ak boroomam ci wàllu xijaab mu koy def comme naka borom bi subhaanahu wa taala santaane mu cay góorgóorlu waaye tey seytaane mi ngi koy jéem a mën ci ay pakk-pakk yu sew xam ngeen ne moom moom du tayal te saa yoo jàppee ne jekku nga ko ba rëcc nga ko rekk mi ngi lay daal di gasal beneen kàmb wala nga doon koo xam ne du fàtte waaye nga sofantal ko mu doon mbir moo xam ne danga ko ñàkkal solo yow jigéenu jullit bi nga fuddan say say loxo ba mu rafet ba nga koy fuddan taar ba amaana sax sa yéene pour sa borom kër la woon waaye tey yaa ngi koy génnee ci mbedd lan moo la teree nga jël li nga xam ne mooy ay gants daal di koy sol daal di génn même su fekkente ne sax daawoo ko def waaye ngal la waay nga ragal sa boroom nga xam ne tey lii nga teg say loxo loo ziyaada la te xam nga ne loolu bokk na ci taaru jigéen nga gis tey uxtu boo xam ne macha allah mi ngi jéem a góorgóorlu boo moytuwul sax mi ngi jilbaab ci kaw ba ci suuf waaye ndeysaan ay tànkam ak ay loxoom ma ngi ca def fuddan noonu lay génnee. wala ay loxoom man ca def ay takkaay noonu lay génnee léeg-léeg sama mbokku jigéen ñi dañ lay jox lay naan la ah xanaa mënul ñàkk nag ñu takk loo xam ne sunuy loxo dafay uuteeg bu góor ma ne ay loxo boo ko nëbbee kan moo ko war a gis waa mbedd mi xam ne loxo bii loxo góor la wala jigéen la ban sens la am yow du xam nga ne rek ab jigéen nga te ñoom it ku la ci gis dina xam ne jigéen na képp ku la gis dina xam ne yow jigéen nga kon lan nga ci soxla leneen xanaa kay li nga ci soxla mooy taaral say loxo te na nga bàyyee xel am na ci ñoo xam ne loxo yi nga xam ne mooy feeñ ñoom xeebuñu ko am na ñoo xam ne seeni bët bu ca dalee rek boo moytuwul mu jural leen fitna ndax damay faral di wax ne borom bi subhaanahu wa taala lépp loo xam ne tere na ko wallaahi njariñ nekku ca kon yow sama mbokkum jullit nga la waay na nga góor góorlu danga cee gis soxna boo xam ne ma nga yar ay wewam defar ko ba mu rafet teg ci ay fuddanam ñu ne déet waay mu teg ca ay jaara loxo may laaj jaara loxo yi su fekkente ne sa taaru bopp la wala sa taaru boroom kër ndax mënta des ci li nga xam ne mooy biir kër gi ahankay walla pour nga yëg ne taaru na il faut waa mbedd mi gis ko ay góoru jàmbur teg ci bët ba war a mën a apprécier ay waay bul nax sa bopp bu la seytaane foye ndax seytaane doon na koo xam ne xeebalul jaamu yàlla bi ci lenn loo xamante ne mën na caa faqastalu wala lenn loo xam ne boroomam mën na ko caa meree te lii tey sunu sàggante la lii tey sunu feebar la ndax ñu bari ci ñun dangay gis ñuy góor góorgóorlu waaye doon na loo xam ne dañ koo sofantal kon yow sama mbokkum jullit bàyyil xel ne warul ci ab jullit mu doon koo xam ne day feeñal taaram ci ay góoru jàmbur te am na mbir yoo xam ne nit ki moo ko moomal boppam yoonu jàmbur nekku ca yow mi koy taxawee te xamoo ko góorgóorlul nga tuub nga jéggalu sa boroom nga xam ne yaa ngi doon def loo xam ne sa diine daf la koo tere yaa ngi doon def loo xam ne mën nga caa am bàkkaar mën nga caa amit sa merub boroom ndax sa boroom daf la ko tere yow mi nga xam ne yaa ko doon def nag cib tayeef ngalawaay na nga góorlu nga ragal yàlla te xam ne borom bi subhaanahu wa taala du deñ di jéggal jaam bi nga xam ne daa ittewoo loolu li nga xam ne mooy ab njéggalam kon di wax ne mbokk yi incha allah ñu ànd góor góorlu ànd defaru waaye ànd bàyyee xel yan ci mbir yi lañuy taxawee te fekk ne diine daf ñu ko tere yan ci mbir yi lañuy taxawee te fekk na borom bi subhaanahu wa mën nañoo jural ñu doon ñoo xam ne dañ ciy am ab meram ñu gaaw tuub daldi di jéggalu yàlla waaye góorgóorlu waat ci sunu diine bàyyee xel bu baax sunu digganteek sunu boroom ci ay ndigalam waaye moytu lépp loo xam ne ab tereem la di wax ne ngalawaay bu ñu xeeb bu ñu sofantal bu ñu ñàkkal fayda mukk ci lu mu mënti doon loo xam ne sunu diine daf ñu koo tere xarit bi nga xam ne tey yaa ngi ko tere bàyyiwul bu tax nga ñàkk bàyyi xarit bi nga xam ne tey yaa ngi ànd ak moom mu di ko def bu mu tax nga di ko defandoo ak moom xanaa nekkoo julit boo xam ne yaa tànn ne damay góor góorlu ci lépp loo xam ne boroom bi daf koo digle ngir ma mën a am ab ngërëmam waaye damay moytu lépp loo xam ne daf ko tere ngir ma mën a mucc ci ab meram bul xool tey ci diw da koy def wala diw day ay waa këram ñoo ma ëpp xam-xam mbokk ma ne la bari na ci nit ñi day ñoo xam ne tey xam nañ waaye seytaane mi ngi leen di foye tey xam nañ waaye dañoo néewal tey xam nañ waaye dañoo sàggan ndax day tax nga sukkandiku seeni njuumte ak seeni erreur ndax bàkkaar boo leen ni bokk la wala borom bi subhaanahu wa taala jaam bu nekk ca la muy jëf ci loolu la koy àttee kon ragalal yàlla te xam ne mbir yi du foofu ak koo mën a yaakaar ak koo mën a gëm ak koo mën a wóolu ak koo naw su fekkente ne jëfewul ay waay na nga góorgóorlu la leer ci yow ci sa diine la leer ci yow ci sa digganteeg sa borom bu ca xaar kenn góorgóorlul nga doon koo xam ne danga koy jëfe nga xam ne mbir yi mbir yi dëgg-dëgg mooy diggante jaamu yàlla bi ak boroomam te kenn ku ci nekk tolluwaay ba nga am ak sa digganteeg sa boroom yàlla nañu borom bi subhaanahu wa taala boole ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax dañuy jël la cay njariñ waaye itam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defaral ñu tawfiiqu lépp loo xam ne lu mu gërëm la ñu mën koo nangu sunuy xol waaye mu yombalal ñu sunuy jëmm ñu mën koo jëfe jëfe day ndekete lu jafe la waaye lu muy jafe di jafe lu yomb borom bi subhaanahu wa la ci jaam bi nga xam ne namm na koo yombal ci moom yàlla nañu bokk ci jaam yi nga xam ne lépp lu borom bi subhaanahu wa gërëm daf ñu koy daal di yombalal ba ñu mën koo taxawee di wax ne incha allah mbokk yi fii la ñuy yëkkatee ci sunu jotaay bi nga xam ne moom la ñu tuddee yóbbalu ab jullit incha allah di leen jox dig daje ci sunu baneeni jotaay ci eggal ak yéen sunu waxtaan bii nga xam ne mi ngi aju ci salaasuuna nahyan shar'iyan linnisaa di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu tawfiqal ñu waaye jéggal ñu lépp loo xam ne njuumte la wala rëcc-rëcc jërë ngeen jëf ahsanallahu ilaykum asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa